faw ñun ñu taxaw ñun waa Géejawaay. xool naka la ñuy defee ba littoral bii nii même bu fekkee dafa am ay aménagement muy am ay ay aménagement d'ordre public ñoo xam te ne ñëpp waa Géejawaay dinañ ci gis seen bopp ñu tàmbale def na ci ay activité yu bari. Mm-hmm. ànd ceeg nit ñu bari li indiwaat coow li tey mooy dafa am ñu ñu àndaloon ca xeex ba ndekete ñoom ba ñuy xeex ñoom ñu ngi négocier suuf ba ñu joxe ay terrain dañoo noppi. li nga wax ni euh, je pense que bu mën a jox ay tur parce que boo ne daam ñu àndaloon tey ñu ngi ci noppi ça veut dire que ne am nga looloo tey sa loxo. waaw xam nga tey euh, li li may may wax rek waa waaye dama ne coow yi dafa tàmbalewaat. Mhm. donc dañ ciy dem ba amaat ci lu leer lu ñu téye parce que dafa am tur yu ñu ci dégg xam nga tamit dafa am looy dégg. am yooyu gis waa dafa dem da nga dem ba am ci lu la leer te ñooñu man dama ci interpeller le maire. Mhm. Ahmed xam tax ma interpeller le maire Ahmed Aïdara Ahmed man moom ñoo àndoon ci combat bi. Mhm. boobu temps. ci opposition bi la nekk. ñoo nekkoon ensemble di liggéey. toujours dans l'opposition waaw il est toujours dans l'opposition mais actuellement tey c'est le maire de la ville. boobu Aliou moo nekkoon le maire. de la ville ok ok il était opposant voilà je comprends. on s'opposait à Aliou parce que yenn démarches yu mu doon def ànduñu ci woon. Mhm. ñu àndoon ak moom. moo tax dama ko interpeller dama ko ne Ahmed xeex bi ñun ñoo ci àndoon tey dégg nañu ne am na ñi nekkoon ak 320 cent municipaux ku nekk am na ci ku ah. nekk am na ci parcelle de terrain. mais loolu c'est scandaleux. non mais attendez man man man man j'ai vu des noms circuler euh, ay benn ñaar ñett ñeent mais là vous me parlez de 320. mais li ma lay wax c'est énorme c'est 320 municipaux 5 communes. ku ci nekk am nga terrain bu ku ci nekk am nga parcelle de terrain. te ma wax la. mais loolu ça a commencé quand. mais c'est sous le régime c'est c'est da Ahmed Aïdara non non bien avant Aliou Sall ok ci régime Aliou Sall la mais kon Ahmed lu doon xeex loolu xam nga boo ñëwaatee en tant que maire tu fais l'état transparence transparence mm. waneel waxal ne lii laa. fekk fa nekk ñu xam. lii laa fekk parce que ñi nekkoon ci combat bi dafa amoon des gens de l'opposition xam nga maire yi conseils municipaux yi. oui fu ne la bokk les gens de la paix. c'est des gens yoo xam ne bu ngeen yuuxoo ñu yuuxu. di kaas ak fekk na am na luñ luñ téye seen loxo. bañ leen joxee la noppi mais ñun est-ce que waa mukk ci àdduna duñ ko noppi. Mhm. en plus bi ci gën a métti mooy comme li nga wax liste ñëw na yaa ngi gis ay tur yoo xam ne <laughs> sax Guédiawaye xam nga conseil municipal yi sax Guédiawaye lañ dëkk mais dafa am tur yoo xam ne ñu dégg ci ay rappeurs nekk ci mhm. de la société civile ay activistes nga dégg la population mhm. doon xeex doon xam nga mooy lan aménagement concerté de la bande de Filao bu ñu ko dindee dafa amul lu ñu digoon. Mhm. reboisement de 6000 pans de filao la ñu waxoon ba ñu koy déclassifié ba léegi benn taxawu ci nga xëy déggaat ñu ne at euh, octroyé nañu ay parcelles de terrain à des gens à des gens. Mhm. qui sont même pas de Guédiawaye. de Guédiawaye mais du ñu ko. tey jii l'état c'est quoi parce que euh, c'est bien beau de dénoncer d'interpeller le maire mhm. mais est que am ngeen moyen bu ngeen dans vos lu euh, ñu koy waxee comme ni entrer dans